am na am na tomb boo xam ne daanaka ñu bëri ci la ñuy juwaloo mooy li ñuy jàpp ne eh, daanaka pétrole beeg gaz bi eh, ni mu ko négocier contrat yeeg eh, bitim réew loolu doonul li war noonu nga gisee mbir mi wala am na beneen gusin boo waa xam nga loolu euh, day naqaree sori parce que ñun gisuñu contrat yi xamaguñu xamaguñu nu mu demee. bu ñu waxee gaz bi par exemple gaz bi dañ ne pour cent lañ ci am beneen 5 pour cent bi. xam yu gën a leer loolu. muy lu mel ni terre bi. Mm-hmm. nga gis contrat yi gis nim ko waxe won gis ne dëppoowul ak non, gis rew yi ñu wër ci prix biñ ko am gis ñun ci biñ ko am gis autorul yi mu fi def gis prix yi ñu jox ak prix yi nga xamne dekk yi ñu wër am nañ ko yoyu mo ëpp solo parce que bu fekke pétrole ak gaz maîtriser guñ ko amaguñ ci xam-xam patan nak ñu egg ci mu gëna yes waye lolu egg guñ ci xamu nit su fekke da nga naan la nek ci mbedd mi baxul xolal biir kër gi ba pare ñun lim ñu defalagun ci biir kër gi baxul kon eggaguñ ci mbedd mi. waaw cib cib cib cib cib taxaw rek taxaw seetlu ci ci loolu eh, ñu bari sax jàpp nañ ñu ne jamono ji bu ñuy xool di xayma Macky Sall moom daanaka ay chance am ngir mu doonaat président eh, bariwut ndax ñu bari daanaka dafa mel dañoo frustré bu ñu sax wax ji ni nga ko waxee ñu bari dafa mel dañoo frustré ndem taxawaay boobu yow tamit nga am. man la sama yaakaar dafa tas ci Macky Sall sama yaakaar dafa tas ci Macky Sall ndax ñi ko fal ci laa bokk mm-hmm. kon sama yaakaar dafa tas ci moom man li ma doon xaar ci moom en tant que seen mu defar réew mi mm-hmm. dañ ñuy nax mm-hmm. liggéeyuñ dañuy joué ci ñu xel yi tey buñ nee la nit ana ñu àndoon ak lay Wade tey ñoo transhumé dem ci Macky Sall ana tey Karim Wade mi ñu ne woon dañ koy tëj ndax dañoo jël àll réew mi ana mu tey moom lañ bàyyi ci loo xam ne amuñu ci dara lu ñu leer. ba léegi indi luñ ci taral bi mu nee day ñëw lu ñu wax bu ñëwee dañ koy tëjaat lu taxoon ñu bàyyi ko pourquoi duñ ñu ko expliquer ñu xam lan la Khalifa Sall mi ñu tëj ah man du ma wax duñ ko tëj de du ma wax itam ndax dossier bi leeruma mais bu fekkee leer na li ñu wax li ñu wax ne moo ko jël moo ko jël kon dañ ko war a téye mais moom ak ay moroomam ab sàcc du jàpp sàcc dossier hmm, waa PDS ñaata dossier la woon ban dossier lañ ci def bu bu Karim bi ñu demee bañ koy bàyyi kenn xamul luñ ko bàyyee donc itam toppoon nañ ko waaye bàyyi nañ ko ci diggante ak ñeneen ñeneen duñ jeex mhm. mënu lim mhm. lo loolu ngir yow lan lan moo ci lan moo ci lalu ba doxalin bi demee noonu lu ci lalu li ci lalu mooy lima ma la wax rek ñun suñu politique suñu politiciens yi dañ ñuy fontoo mhm. ñoom ñëpp yam jamonoy Senghor ba léegi dañ ñuy fonto ken defu fi dara kenn defu fi dara Macky Sall mënu la wax dara lu leer ci lim fi def li mu lay wan lépp loolu suñu alal la loolu dara boo joxee nit ñaari junni ne ko demal toggal ma añ mu dem indil la kopp soom bi bo loo koy sante defalu la dara cest dire ñun sénégalais li ñu war a xam mooy gouvernement bi xaalis bi ñu yor suñu xaalis la ñun suñuy TVA yàlla boo jëndee fii tàngal mande fraise 18 pour cent lañu ciy teg dañuy fay impôt di fay patente di fay ay juuti di fay lu ne auto lo, ko yoree fii lu ne lañ lay fayloo xol assurance yi oto yor bo amul assurance bo gene ñu japp la ta assurance dula jariñ dara buñ la mbëkkee da ngay pet man saa ñu mbëkkee damay balé liñ ci wara daj pour ñu fay la kenn dula fay amul ben assurance bu baax ñun li ñuy fay di jël suñu xaar di leen ko fay lum ñuy jariñ jëriñu ñuy dara yaram fo dekk ni wakam wakam gi lu fi am xolu suñu mbeddi leeru amul tali suufu kese la amul dara. loolu nga foog ni nekkul maire bee ko war a war a lijjanti ndem Macky Sall la war a ñëw ñenn ñi la. ñoom ñëpp ñooy bi rek ñoom ñëpp ñenn la mm-hmm. gis nga. gouvernement bi bu ñu tege woon ni ñu war a tege. maire bi du mën a lekk du mën a lekk kees gi.